asalaamaaleykum euh, chers internautes ñu ngi leen di dalal euh, tey ci seen euh, site préféré senego.com tey ñu ngi dalal benn candidat à la prés à la candidature pour la présidentielle de 2024 muy di Youssouf Youssouf Mbodj mhm. président de l' alliance patriotique du millénium mu ngi nekk aussi ingénieur diplômé de l' école polytechnique de Thiès en même temps mu ngi nekk aussi cadre à la Sénélec monsieur Mbodj mhm. ñu ngi lay nuyu di la Sénégal. ñu lay fay Camara di nuyu ñëpp ñuy suivre à travers euh, les réseaux de Sénégal di ñaan yàlla ñu dem def débat bu am solo boo xam ne waxtaan lay doon. donc euh, candidat nga à la candidature actuellement mhm. yéen a ngi ci parrainage yeeg yooyu. Mhm. donc euh, mais suñu xoolee aussi seen parti bi amagul presque cinq ans d' existence mais comment parti bu amagul cinq d' existence euh, prétendent appliquer le mandat actuellement question parce que on souvent dañ naan expérience dafa am solo ci politique mm-hmm. mais damay rappeler rek ñi fi nekk euh, ça fait 63 ans presque ce sont deux partis qui règnent au Sénégal à travers le PS le PDS parce que même AFP Euh, ça vient du P du PS boo jëlee APR. Mhm. pour le démembrement principal. Mhm. ça vient aussi du PDS. Mhm. donc ñoom ñaar ñoo fi nekk di régner te jusqu'à présent on n'a pas le développement escompté. léegi boo jëlee dans on invoque un peu l'histoire boo jëlee ay France Emmanuel Macron ba muy nekk président foofu. ce sont pas mes exemples hein, pour dire vrai mais boo jëlee son son histoire il a fait deux ans je pense avant d'être président. Donc, il était venu du néant. Mhm. Même Barack Obama aux mhm. États-Unis, ce ne sont pas mes exemples encore une mhm. fois, mais boo xoolee moom tamit il est devenu président à presque de un mois, un an. Donc loolu expérience boobu ñuy wax noonu c'est pas primordial. Parce que gis nañ ne c'est le même système qui continue. Donc avoir l'expérience dans ce système-là ne veut pas dire que forcément yow. di nga am le recul et l'œil neuf nécessaire pour que nga mën a développer sa dëkk. Mm-hmm. donc ñun on a un argument de pois mooy lan. Mm-hmm. tëb ñu tëb rek nekk candidat à la candidature ou candidat aux élections mm-hmm. dañoo tëb benn livre. tuddee ko le Sénégal du millénium viatique des patriotes pour la l'abondance mu doon Sénégalu millénium millénium mooy junni atum naataange bu ñu ko doon simplifier parce que millénium mooy millénaire mooy mille en en anglais bu ñu dee viatique des patriotes pour l'abondance mooy yóbbal ñi bëgg seen dëkk bëggal ko naat naataange donc looloo tax te yóbbal boo déggee yóbbal mooy lan mooy koo xam ne dafay waaj faatu ñu jox ko loo xam ne moom lay yóbbaale te boo xoolee faatu boobu mooy lan c'est la mort avant de la renaissance mm. renaissance boobu ñuy wax noonu il faut d'abord mu am lu dee donc ñun loolu lañ indi un vent nouveau ñëw jël suñu livre programme page mm-hmm. pages 19 chapitres mm-hmm. wax ci 15 chapitres clés yoo xam ne ay secteurs clés la mm-hmm. industrie agriculture commerce éducation pétrole gaz mine lépp wax nañ ko ci loolu yëpp pour wan sénégalais yi ne am nañu xam-xam bi pour mën a diriger réew mi te am nañ aussi loxo yu set su ñu ko yaakaaree donc loolu yëpp mooy ingrédients yi nga xam ne dëgg-dëgg moom nañu soxla un homme de valeur un homme de vertu un homme qui a compétence pour mën a diriger réew mi mais pas expérience. ok donc euh, c'est vrai que euh, bëri au, Sénégal aussi on a une certaine réalité. parce que. Mhm. Euh, ñi ci ëpp soo gisee ñi fi ñi fi jot a falu dañ leen xamoon ñu mhm. yàgg ñu ay combat politique mhm. donc euh, mën nañ jël exemple Abdoulaye Wade mhm. euh, ni mu def ba egg pouvoir euh, le président Macky Sall fi mu jaar ak Abdoulaye Wade ak yooyu mais donc est-ce que xalaatoo aussi loolu mënu leen gàllankoor par rapport ak philosophie sénégalaise yi chacun son destin boo xoolee bu baax nit politique yi ku nekk bokkul ak destin sa morom Abdou Diouf par exemple boo xoolee ni mu nekkee président Abdou Diouf amul woon bastion politique fort mhm. il était gouverneur jóge foofu mu dem premier ministre mhm. après ñu nekk président Senghor Senghor ñëw légué ko mhm. c' était son destin Ablaye Wade il a fait 27 ans d' opposition balaa muy nekk président Macky Sall il a fait 2 ans d' opposition balaa muy nekk président donc ku nekk ak sa wërsëg donc euh, affaire bi mu ngi jóge ci nguur nguur te nguur yàlla moo koy maye xam nga bu dee nomination poste ministre rek ñoomin seen loolu nit ki da ngay da lay neex nga def ko ministre loolu moo ñu dal aussi au niveau des sociétés si tu veux passer directeur parfois il faut nga neex ko directeur général bi donc dans tous les cas li am solo mooy lan mooy xam-xam bi yëg-yëg bi ak euh, yéene bi pour Sénégal ak programme bu dëgër donc loolu comme am nañ ko jàpp nañ ne Sénégalais yi nañ ñu ko nangul te fu ñu nii ñoo ngi si parrainage pënd gi wureegul parce que dafa am deux cent et quelques candidats c'est trop mais dinañ ko nangul ku ne parce que ku nekk mën nga nekk sénégalais ne je am naa sañ-sañ dem ci candidature bi bu la neexee mais bu ñu jàllee parrainage yi ba quinzaine de candidats vingtaine de candidats ça dépend ñooñu ñëpp ñu fël boobaa débat programmatique yi day commencé ku si nekk bu ñu la tegee si plateau amatul wax wax waxu daanu saret da ngay wax ci éducation wax ci santé wax ci culture wax ci lépp domaine yëpp artisanat industrie nga wax naka nga mën a Sénégal boobaa nit ñi nañ xam naturellement kan mooy le meilleur profil pour être président. ok tout à l'heure aussi yaa ngi xaw a laal tuuti si sa programme. Mhm. donc euh, ci programme boobu aussi yaa ngi ciy wax euh, ci waxu réforme systémique est-ce que mën ngeen ko expliquer un waaw parce que loo gis euh, système la ak nit ñi koy doxal donc boo bëggee mbir mi dox da ngay da ngay forger nit ñi d'abord mhm. ñi nga xam ne ñoo war a dugg ci système bi les hommes d'abord mhm. donc fexe ba. éduquer nit ñi discipliner leen jox leen vertu de travail d'éthique de déontologie nga xam ne vertu yooyu bu ñu ko amee système boo mënti doxal tamit boo mënti teg tamit dañ ko mën doxal donc système réforme systémique boobu dafa fekk ne ñun nu ñuy jànge ak nu ñuy fonctionner baaxul boo jëlee par exemple ñun ñuy jàng ñu ñuy woowee intellectuel moom le président burkinabé bi di wax intellectuel mooy ki nga xam ne il maîtrise bien la langue d'autrui mhm. il a raison mhm. alors que intellectuel dëgg dëgg dëgg mooy xam ne dafa am compétence mën naa tabax tali mën na opérer nit mën naa tabax maçon bi par exemple mën naa defal mobilier loolu mooy compétence loolu mooy intellectuel au vrai sens du terme donc ñun nañu fexe ba compétence yooyu un système capacitif ñu defar ko ba nit ki bu duggee école bu génnee du doon un un littéraire boo xam ne maîtriser wul dara. mën nañu jàpp ne da ngay réformer système éducatif bu baax parce que même boo nekkee littéraire par exemple pour rebondir sur l' exemple là. Mhm. mais da war a mën au moins rédiger des contrats. Mhm. wala nga mën def un bilan comptable. Mhm. wala nga mën a def un bilan financier un état financier. donc yooyu yëpp dafa important pour que capacité yooyu ñu am ko buñ ko amee boobaa suñu dëkk lii yëpp nga xam ne moo ñu wër parce que suñu dëkk. maa ngi liir benn video sànq muy wax ne euh, Sénégal kii bi africain bi bu jugee moo ngi solu costume bi muy sol defaruñu ko fii à l'étranger Italie wala feneen wala Turquie euh, jean bi muy sol moo ngi ko ñoo ngi ko defaree feneen dàll bi muy sol ñoo ngi ko defee itali bu jëlee oto oto bi ñu ngi ko defaree aux États-Unis wala fële au Japon avec Toyota donc muy lim lim lim lim de toute la journée même bu wàccee lan lay seetaan benn chaine boo xam ne chaine étranger donc pour dire que ne ñun on ne fait rien de chez nous. te pourtant on ne que consommer mm. alors que moo tax on représente 2 pour cent du commerce international mondial mm. donc lu ñu suñu programme lu ñu indi mooy lan industrialiser le pays d'ailleurs maa ngi préparé beneen livre boo xam ne ça porte exclusivement si industrialiser le pays mm. donc industrie minière pétrolière gazière pharmaceutique gastronomique maanaam lekk bi parce qu'en Europe boo demee les grands chefs européens ce sont des millionnaires en Europe donc des milliardaires en Industrie cinématographique avec Nollywood c'est un bon exemple le Nigeria industrie musicale industrie sportive loolu yëpp dañ ko war a développer mais surtout les industries minières pétrolières parce que foofu lañ mën a defaree lépp li nga xam ne moom lañ soxla bu ñu soxla soxlawee euh, oto duñ ko dem jëndati France parce que mën nañ monter fii une marque bien de chez parce qu'on a toutes les composantes même batterie électrique yi nga xam ne moo nekk en vogue mais le lithium on l'a au Sénégal nit ñi xamuñu ko donc candidat bu bëgg nekk président te xamoo lan la Sénégal am en ressource mi liiroo contrat minier yi xamoo code minier xamoo code pétrolier mhm. donc yow xamoo dëgg dëgg dëgg naka la ñu mën a defaree dëkk bi ok mais aussi aussi toujours dans votre programme vous parlez aussi de la mise en place d'un fonds de solidarité pour encourager l'entrepreneuriat aussi mhm. bon déjà am na ay fonds yu disponible mooy le DER développement entrepreneuriat rapide am na yeneen fonds yu disponible euh, fonds JIP je pense un peu mais li am importance mooy lan ñun dañoo jël benn 19 euh, actes fondateurs du millénium millénium bi ñu bëgg a tëbb ñoo def 19 actes fondateurs ci biir actes yooyu noonu am na benn bu ñu naan lépp luy euh, caisse noire soxlawuñu ko parce que c'est une caisse politique nit ñi nee nañ nee na mën na mën a servir à autre non le budget de la défense est bien établi 531 milliards la voté nañ ko tout récemment. donc xam nañ lan mooy budget dépense jarul ñu koy nëbb xam nañ ko ñun ñoom à l'étranger xam nañ lépp li nga xam ne moom mooy dépense. léegi ñun bu ñu jëlee caisse boobu noonu mën nañ ko traduire en une caisse de soutien à l'entrepreneuriat. bu ñu amee beneen fonds bu jugee ci pétrole gaz nga xam ne par exemple foofu euh, si on parle des fonds souverains bu ñu jëlee une partie moom mën a aussi dooleel entrepreneuriat dina baax parce que ñun ñoo ngi jàng comme je le disais mais on on nous taille comme si dañoo war a génn nekk ay travailleurs yuy nekk ci fonction publique wala parafonctionnaire alors qu'en réalité on doit nous tailler dañu war a éduquer de tell sorte que bu ñu génnee dañu war a mën a nekk ay entrepreneur parce que entrepreneur yi ñoo yore dëkk bi donc ñun nañ fexe ba caisse de solidarité boobu noonu ñu dooleel ko de telle sorte que ku am sa projet ñu accompagner la maintenant accompagner la ça veut pas dire que dañu lay jox xaalis rek bàyyi la dañ la war a capacité ba nga yow nga mën a def sa business plan maanaam sa plan de financement sa plan de d'affaires nga mën a xam say charges fixes say charges variables maanaam par mois ñaata lan mooy say charge lu nga war a dépasser lan mooy varier lan mooy sa besoin en fonds de roulement mooy loo xam ne nga ko war a denc pour mën a doxal say mbir mm-hmm. loolu yëpp bu ñu leen ci formé capacité leen te 3FPT moo ngi fi ARMP kii moo ngi fi naka tuddi ADPME am na yoo xam ne ñoo ngi fi ñoom ñoo war capacité tous les Sénégalais de telle sorte même ku am emploi am war nañ ko mën a pousse pour que avant la retraite à 45 ans déjà ñu commencé di ko accompagner pour que avant muy am 60 ans muy bañ a xalaat retraite wala bañ xalaat pension parce que boo xoolee réforme retraite yi c'est partout au monde parce que l'État n'a plus les, les, moyens di fay retraité donc nañ leen accompagner à 45 ans dañu réduire seen horaire de travail ñu mën a am benn battement heures de temps boo xam ne tu les formes bu ñu paree loolu nag nga accompagner leen avec des un budget conséquent ñu mën a def beneen beneen business. loolu déjà mën nañ mën nañu permettre ñun ñu génn ci dépendance au salaire parce que salaire du xaalis. Mm-hmm. donc mais concernant aussi bon tout yaa ngi expliqué mais concernant aussi euh, ceux qui sont dans le secteur informel parce que gars yi c'est vrai que aussi euh, ñu ngi contribuer. Euh, mm-hmm. ci économie mais problème mooy secteur boobu régulé wuñ ko waxee. Mm-hmm. lan ngay proposer. déjà ñun am na benn réforme bu ñu bëgg a def au niveau de éducation qui concerne les cantines cantines yi ak euh, fourniture bi ak transport xale yi dañ ko bëgg def gratuite bon donc ça passe par une taxe éducation mais taxe éducation boobu ñi nekk salaire basé domi kii fichier ñooñu ñoo koy mën a def maintenant secteur informel bi foofu dañuy profiter au niveau des écoles ñu déployer tout ce qui est arsenal pour formaliser régulariser nga xam ne ñoom bu ñëwee foofu mën nañ leen enregistrer bu leen enregistrer ñu régulariser wu au niveau des impôts et domaines mais dina permettre à ce que ñun déjà ñoom déjà dinañ gën a tegu ci axe ñu xam naka lañ leen di mën a dopee ba pare dina permettre à que ñoom seen i doom ñu mën a jàng sans pour ñuy fay seen fourniture sans pour autant ñuy fay cantine cantine mooy permettre à ce xale bi quelle que soit condition yi mu nekkee à la maison bu demee école day lekk ba suur ba pare day lekk ba pare en quantité en qualité parce que dañ koy accompagner ak nutritionniste donc yooyu yëpp ay mesures la yoo xam ne boo tegee ñoom dinañ sawar si dem enregistré wu formalisé wu donc loolu c'est un acte qu'on poser parce que bu ñu leen bëggee formaliser c'est pas pour ponctionner seen richesse parce que Sénégal toll na foo xam ne on a 1400 milliards de mètres cubes de gaz waxoon naa ko fi loolu dina permettre normalement à que ñun suñuy besoins primaires yi ñu mën ko faj lu soxla ti ñuy imposer impôts yi metti au Sénégalais d'ailleurs ci chapitre sur l'industrie wax nañ ci ne impôts yi ñoom ñooy plomber l'industrie ak les factures eau électricité et cetera parce que le le professionnel paie beaucoup plus que le domestique maanaam ñun ñi ménage yi ki nga xam ne moo ngi liggéey il a un tarif plus élevé loolu nag il faut que ñu niveler ko de telle sorte que comme domestique bi wala un peu moins sax pour encourager ce qu'on appelle le business loolu yëpp ay mesures la yoo xam ne secteur informel bi bu leen ranger ci loolu dina leen gën a encourager ñu encadrer leen jàppale leen bu ñu gisee ay difficultés de leur part comme par exemple mécaniciens nga xam ne amuñu ay espace pour faire le travail état bi def na benn benn benn atelier wala benn espace dédié bu baax loolu yëpp il faut l'accompagner pas seulement faire l'espace dédié mais comme dañoo soxla capacité wu parce que léegi il y a plus de mécanique presque dans les véhicules électriques il a de la mécanique et de l'électronique et de l'électricité donc li ñu war a def mooy ñoom bu ñu gisee ne dañoo xaw a tabatee nga côté boobu noonu ñu jàppale leen formation pour que ñu mën a euh, élever wu pour que aussi ñu mën a formaliser wu non seulement sur le plan des de la fiscale mais aussi sur le plan de la formation pourquoi pas joxe ay diplôme foofu yoo xam ne dañ leen di reconnaître parce que diplôme ça doit c'est une présomption de compétence diplôme warul nekk loo xam ne rek da ma jàng parce que fii laa jaar rek am naa diplôme am naa capacité bu emploi amee man maay postuler non diplôme capacité la donc fekkee ne dëgg-dëgg am nañ capacité mën nañ leen jox diplôme de reconnaissance ñu bañ a copier systématiquement le système occidental parce que moo ñu tardel Donc, euh, la gratuité progressive de l'eau et de l'électricité pour tous les ménages sénégalais ne relève en fait euh, loolu ngay proposé ce programme donc est que yaakaar nga mën na nekk tantôt je vous parlais pour l'électricité déjà. Ouais. tantôt je vous parlais des 1400 milliards de mètres cubes de gaz. Mm -hmm. nous sommes quatrième africain te ce sont des réserves prouvées maanaam loo xam ne saytu nañ ko gis nañ ko c'est prouvé. yi mhm. nga xam ne nag ñoo ngi koy saytuwaat tuuti te moo ngi fi di feeñagul. donc d'ici peu mën na am sax ñu dem ba jege Nigéria nga xam ne moo ngi 5 millions 500 5 euh, mille 500 milliards de mètres cubes te ñoom 227 millions d' habitants la ñu am ñun 17 millions gis nga avantage bi donc Sénégal bu góorgóorlu tuuti mën na nekk Qatar bu ndaw te boo xoolee euh, électricité même président de la république am na benn politique à travers le ministère bu ñu wooyee gas to power gas to power mooy lan jël gaz bi pour alimenter les les les les centrales électriques parce que boo xoolee Sénélec ses dépenses di gën a metti di gën a saf c'est pas seulement les contrats IPP mais c'est surtout euh, la charge côté combustible mooy carburant beeg ñoom seen ñu war a dugal ci machine yi donc gaz bi bu ñëwee déjà c'est une énergie assez propre ba pare na permettre ñu compresser dépense boobu noonu bu ko compresser à 60 pour cent 70 pour cent 30 pour cent yi après dañuy xool ak les industries industries yu mag ñi ñoom ñooy fay te bu même bu ñu leen di fayloo dañ leen di fayloo tarif boo xam ne quand même dina leen encourager pour que ñu ñëw Sénégal parce que ñun dañoo bëgg a industrialiser dëkk bi il faut pas que aussi l'électricité plombe l'industrialisation donc am nañ assez de gaz balaa ñu koy jël di ko jaay feneen nañ ko utiliser ba pare laax balaa ngay laax jaay nga laax lekk. mais en fait ci loolu bëgg naa la laaj parce que y a des ingénieurs yi nga xam ne ñu ngi cooy wax en fait. Mhm. concernant un l'énergie solaire. donc mm -hmm. Sénégal c'est Euh, li li ñuy am ci énergie solaire parce que dëkk yu bëri amuñu ko. dëgg la pourquoi ñuy focaliser surtout si gaz bi alors que naaj bi mën nañu jox électricité bi ñu soxla. pourtant ñu ngi si dafay jéego parce que boo xoolee fu ñu nii le pourcentage centrale solaire bi sur la production je pense que on est dans les vingt trente pour cent. yéeg nañ bu baax. mais c'est le problème du solaire en tant que d'ingénieur je sais que ne côté régulation côté régulation fréquence et cetera le solaire il est là amaguñu pour ne nii defaguñu stockage d' énergie. bu ñu doon def stockage d' mhm. mën nga stocker la nuit tu peux l' utiliser. mais ñun on a besoin d' avoir une puissance en fonction de la charge maanaam offre bi. maanaam bu dee da nga soxla un giga. Mhm. il faut nga am un giga bu positionné wu. Mhm. bu dee solaire bi nga positionné wu après parfois c' est difficile nga mën a atteindre un giga boobu surtout la nuit. donc loolu tax inconvénient boobu mooy stocké guñu énergie mais dinañ ci ñëw. mais solaire bi c'est à encourager maintenant le solaire pour l'instant n'est pas à faible coût boo jëlee le coût du kilowattheure du solaire mhm. il n'est pas aussi bas qu'on le pense mhm. donc il faut que déjà ñu atteindre cet objectif mooy solaire bi mu bañ a lu bëri mhm. ba pare nag ñu mën réussir à stocker l'énergie bu baax bu ñu réussir les deux défis ce sont des défis technologiques te technologie bi fu ñu nii tubaab bi ñoo ko yore transfert de technologie boobu nag ça s'achète boo nekkee état mais da xam ne lii da ko war a dem jënd ji xam la boo xam ne sa dëkk da koy soxla Pakistan ñoom ils sont dans le nucléaire depuis très longtemps depuis très longtemps alors que ñoom amuñu yenn doole yi mais c'est un c'est une option de son de son état que d'avoir l'arme nucléaire d'avoir des centrales nucléaires ñun aussi bu ñu ñëwee en tant qu'état on veut l'indépendance énergétique on veut que Sénégal fépp mu am courant village yëpp boo veut aussi développer l'industrie loolu day xëcc donc le besoin en courant day yokk il faut que donc ñu dem vers euh, cette diversification la donc à travers l'énergie donc loolu mooy laal suñu xalaat ci affaire bi ok donc euh, monsieur Mbodj ñu ngi presque si jeexantalu émission bi mhm. donc que euh, c'était intéressant mais xam waxtu bi moo ñu xaw a xoj tuuti mhm. mais aussi bëgguma la bàyyi te laajuma la benn question par rapport ak niveau démocratie au Sénégal naka nga mhm. jàngatee actuellement niveau démocratie ici waaw démocratie bind naa ko ci livre bi parce qu'on a des, des, des, des références de démocratie. J'ai cité le Mandé, la charte du Mandé. J'ai cité aussi le royaume, de, de, de, le royaume du Fouta avec Tcherno Souleymane Bal. On a aussi cherché quelques euh, indices sur Mo Ibrahim, etc. Le lieu pour wax voir la démocratie Pour moi, la démocratie, c'est très simple. Il faut que nit nous say droit ak say devoir say droit nga mën ko matale droit boo xam ne tu es citoyen tu peux normalement aspirer à aller aux élections présidentielles tu peux avoir ton parti politique doxal sa parti politique nu mu la neexee euh, tant que yow yaa ngi tegu ci axe maintenant l'État euh, moom mooy le père de la nation on peut dire donc état bi moom moo war a am un peu de grandeur am benn euh, hauteur d'esprit de telle sorte que ne c'est pas parce que un, un parti un tel a fauté si yow li nga gis que noonu da nga ko war a dissoudre par exemple je sais que vous parlez un peu de cet exemple là donc man si man dissolution de parti warul nekk loo xam ne dafa war a am su fekkee ne y a des récalcitrants dans le parti mais sempi leen wala indexé leen clairement ba nit ñi xam ne ñii dëgg-dëgg tooñ nañ mhm. génnal des preuves boo xam ne sénégalais bi du ko réfuter mhm. boo ko génnee boobaa nañ xam ne ñii mënuñu adhérer si ay parti mais boo génnoon preuve yooyu waxoo lu leer jugement procès politique yi ñëpp jàpp ne ay tappale la pour empêcher un candidat d'aller au euh, kii nii mais tant que sentiment boobu jugul rek sa démocratie demul te démocratie mooy lan c'est pas forcément limité des mandats limité des mandats c'est le modèle euh, euh, c'est le modèle occidental mm-hmm. man dans le livre je l'ai dit je ne suis pas pour la limitation des mandats mm-hmm. le président actuel avait déjà donné sa parole moom wax na ne dafay dem donc éthique déontologie mayetu ko moom muy toogaat mais pour man limitation de mandat ça dépend fekkee ne le peuple bu doon Abdoulaye Wade moo ñëwoon tey ne dafa bëgg nekkaat président peuple bi ne woolu nañ ko malgré son âge malgré que def na deux mandats et cetera mais nañ ko ko jox loolu mooy problème loolu mooy affaire bi loolu mooy démocratie faut être démocratique donc laissons à tout le monde la marge tant que moo ngi xelam mooy conditions yu ñu décliné tant que moo ngi xelam nañ ko bàyyi mu mën a dem ci élection donc le cas de de de Pastef a été dissous je pense que c'est un cas d'école il faut éviter pour man euh, ku jël nguur gi yàlla na doon ñu ñun il faut ñu xoolaat dossier boobu noonu euh, bu fekkee nañu war a réhabiliter Pastef ñu réhabiliter ko bu fekkee ne am nañ preuve yoo xam ne nag wane na ne leen di jiin dëgg la mhm. boobaa on laisse tomber ok donc alors le Sénégal du millénium médiatique des patriotes pour l'abondance mooy sa turu donc euh, sénégalais yi si bëgg euh, naka li ñuy def pour am. waaw dinaa joxe benn euh, contact. ñun ñoo ngi koy dama ko imprimer je ne suis pas passé par éditeur yi ngay faral di gis ni les maisons d'édition parce que seen modèle man ça ne me convenait pour dire vrai. Amazon laa ko teg pour la diaspora ñoom ñu mën ko commander foofu. léegi fii nii dinaa joxe benn li benn contact sama page euh, Facebook ak sama mhm. page Twitter yi. Mhm. ak yeneen compte yi nga xam ne mooy si parti bi. Mhm. ku ñu ko bu ñu ko contacter kooku ne leen mën a acheminer le livre. c'est à 15 000 francs. c'est pas cher par rapport à l'édition parce que c'est 502 pages dafa xaw a volumineux mhm. donc ñun cherché wuñu ci bénéfice d'ailleurs bu ñuy def tournée les les hommes religieux les autorités religieuses ak yenn autorités commune commune coutumier mhm. dañ lañ koy jox gratuitement bu ñuy def aussi bu ñu bëggee aussi dem ci benn plateau parfois il nous arrive de donner euh, gratuitement aux journalistes parce que tamit euh, c'est c'est pour faire la promotion du livre donc loolu la donc ñu ngi doon dalal Youssouf Mbodj mu nekk aussi euh, président de de l' alliance patriotique du millénium nekk aussi ingénieur diplômé à l' école polytechnique de Thiès et à la CNLA ñu bàyyi la nga tàggatoo monsieur Mbour. waaw di nu téléspectateurs yëpp ñu ñuy suivre à travers le réseau de la de de mm-hmm. di leen invité tamit ñu parrainé nañu parce que ñoo ngi ci parrainage donc ku ñu bëgg a parrainé boo demee suñu page yi bu tapé alliance patriotique du millénium wala nga tapé Youssouf Mbodj sur tous les réseaux sociaux vous nous trouverez. si vous voulez parrainer nañ leen jox ay contacts sur par département parce que pour les 46 départements au moins on a maillé l'essentiel les 44 donc vous pouvez avoir les contacts les contacter pour que ñoom ñu mun leen wax nag ngeen di def pour parrainer. ok jërëjëf merci beaucoup.